yéen kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ko ca dëgg ne ko ca masa ndax nee na candidat la cay doon mi ngi ko waxee ci l'observateur ubbil yéene kaay mu am ngir jiite réew mi la ko ci dugal nee bokk na ci wan ñi nga xam ne doomi daara lañu ne moom ne dara jomb leen mën nañoo bokk ci li doxal réew mi dugg ci système bi takk ci ndomba tànk yi gën a kawe l'observateur nañu ginnaaw ndam lu rëy li mu amoon ca Kaolack ci élection locale yi ak jaloor a jamu fa wane Serigne Mboup ma ngay ñoqali jëm kaw la mu njëkk a leeral ci waxtaan moo di en tant nit koo xam ne bees nga ci politique bi fan la jaar ba gañe ca Kaolack ay kàngami politique nee na li ko ko may mooy ci dëgg ci la laajee mairie bu Kaolack woo waa Kaolack gépp muy pouvoir di opposition ngir ñu ànd liggéey sëriñ bu ne wàll observateur mérite mi du moom waaye askanu Kaolack la rafetlu na it sa dogal bi président Macky jël jëm ci ne du bokk ci élection présidentielle 2024 moom candidat bi ci yooyu la élection di sëriñ buub gay l'observateur bi ñu ko laajee ne ko ndax ngir jiite réew mi réew mi quotidien nee nañu nañu ci suur ministre affaires étrangères ba woon di Cheikh Tidiane Gadio moom Gadio journal bi nee nañu bokkul ci ñi nga xam ne dañuy xaar Macky Sall mu tànnal waa Benno Bokk Yaakaar seenub candidat Cheikh Tidiane Gadio mi ngi waaj candidature boppam candidat beneen ci élection présidentielle yi 2024 di El Hadji Malick Gakou borom grand parti la Sénégal nee nañu ma nga woon ca kees démb wuti parrainage moo ca kees wax na fa ci mbiri Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko sama rakk la duma ko mës a bàyyi ginnaaw tey laa ko gën a solidariteel tey laa jotaat ak wéram mën a xeex bi mu doon xeex ngir Sénégal lu jëm ci riiroo gi am ci biir Yewwi Askan Wi ak Khalifa Ababacar Sall ak waa këram ya ñu fa dàq l'observateur mi ngi ñuy wax ne Alaaji Malick Gakou nangu ci woon a sori démb ki sori ci mbiri Khalifa Ababacar Sall ba ci bopp ak baat mooy Bougane Gueye Dany li tax temps yii ba Bougane Gueye Dany yabul lool ci mbojum Khalifa Ababacar Sall journal la mandat xëy na di ñu ko gëstul dem ba di ñu yeewi askan yu soowul woon ci Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany bokk ca rax ci dolli dañoo jàppoon ne Bougane nguur gi moo ko ngemb jamonoy dox ba yuuxu jib fu ñu ko foogewul Ousmane Sonko ma ca kaso ba di def grève de faim yéen a kaay bii di point actu mi ngi ñuy wax ne la daloon waa ji di Bobby Sand mi ngi koy yot Bobby Sand ab militant irlandais la bu doon def grève de faim toogoon juróom-benn fukki fan ak juróom-benn yu mu lekkul fa mu mujj mooy farfaatu Union des magistrats du Sénégal du UMS seen assemblée bi ñu doon def keroog la fa xew journal yu bari ñu xëyandool xëy nañu ci Vox Populi las ba ci source mi ñu xamal ne Ousmane Chimère Diouf mi jiite woon Union des magistrats du Sénégal moom la waa UMS tànnaat falaat ko joxaat ko ñaareelu mandat source ñëw na ak ñu nit ci kàddu yu fa ministre de la justice Ismaïla Madior Fall yëkkati ak président bu UMS di Ousmane Chimère Diouf Le Quotidien tuddee ko ordonnance bu UMS enquête dina kay gis ne justice bi da solde ay comptam les ko nañu ñoom magistrat sàkku nañu justice ci seen liggéey bëgg nañu ñu amal ay seen biir ci biir loolee libération mi ngi ñuy xibaar ci xëta mu njëkk ne mbiri Juan Branco pënd tegaan loxo njoogu loola tuddoo di xarit ci maire bu Sàngalkam libération nee ñu waa section recherche ñoo demoon jàppi ko ñeneen ñi ñu jàpp ñu ngi ci xët mu njëkk journal Tribune ay góor jigéen la yu toll ci fukk ci cité mixta fa la leen fekk ñuy siim seen mari ak di def yëfi saay-saay toll nañu ci fukki góor jigéen ñi ëpp ci ñoom ay tailleur lañu ki ci mag journal bi nee nañu ñaar fukki ak juróom-ñeent di 29 ans moom la am ci appartement